قديما لمن أبى أنادي بالقرآن amiin

rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Seex Ahmad Bamba Xaadim Rasul di ñaanal tam sunu kilifa gu baax gi sëriñ Muntaxa Mbàkke sunu borom may ko ak wér te yàggal ko ci sunu kanam ñu yàgg ko liggéeyal ci barkeb sëriñ Tuubaa tey jii muy bis boo xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké moom Serigne Souhaïbou moo doon indi ab liggéeyam fii ci jumaa yi Touba muy ay ventilateur yoo xam ne yu ama am solo la yu dëppook jamono mooy yi ngeen di gis mu yéene woon ko barab bi lool fagg woon ko ànd kook bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ko sëriñ bi booleel ñu nekk ci gannaawam tey jii ñu fàgg woon ci lu toll ci ñaar fukki ventilateur ak juróom muy ventilateur itam yu yéeme yoo xam ne li ci eh, lim àndal lu lu yu am solo la ndax du ventilateur yi simple yuy génn ngelaw rek waaye ventilateur la yoo xam ne day inspiré lu mel ne ay microbe lu mel ne virus lu mel ne lépp loo xam ne wërta mën a méngoog jataay bi ñu toog muy ventilateur yu ama am solo yu dëppook jamono yoo xam ne jàpp naa ne bëreegul ci réew mi wala boog ñu bari gisaguñ ko muy wanleté itam yu seer yoo xam ne benn bu ne xam naa sëñ bi sax bëggut ku koy leeral yu demee noonu waaye ngir leeral ko rek ñu xam ne benn bu ci ne juróom-ñaar fukki junni lay lay jar ñu mu fàggu ci nag ñaar fukki wanleté ak ak juróom andi ko lépp ngir xam ne sëriñ Tuubaa lépp lu baax fu ne rek ci moom la yàlla moo taxoon mu fàggu ko ñëw andi ko euh, dugale ko ab liggéeyam ci sëriñ bi mooy euh, liggéey katub sëriñ Tuubaa boo xam ne lii day luñ gisagul nii rek waaye waxtu wu ne ci liggéey sëriñ Tuubaa la la nekk lum mm, def ba jébbale ko rek mu ngi dégluwaat ndigal ci weneen ci weneen ci weneen ci weneen sas kon ñu maasa ko xamee noonu tey ñu demoon jébbale ko sëriñ Muntaxa leeral ko liggéey bi sëriñ Muntaxa itam ne ñu dem leen ba ci sëriñ xaafi Muxtaar moo ma nekkal ca jumaa ja moom laa teg ab ci ci loxoom lépp lu aju ci liggéey ba ci foofu ci jumaa kon bu nga nga tegal nga teg ko ci loxoom ñu àndoon ak sëriñ bi tey nag ak bokki taalibe ñëw jébbal jébbal si ko sëñ eh, aafe kon liggéey baa ngoog sëriñ ñu ngi ñaan yàlla suñu boroom yàlla may la ak wér ak gudd fan ba nga yàgg ko taxaw ñu yàgg la fee fekk Euh, Cheikh Mouhamadou Amine ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziara gannaaw buy ñu nuyoo suñu kilifa mu mag mi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan suñu borom yokk aw fanam yokk ak wéram ñu ànd ak moom liggéey yi mu def ko ni mu ko bëggee ci barke Sëriñ Tuubaa di wax mbokk julli yëpp ne tey ñu ngi toog nii ak Cheikh Mouhamadou Amine mu Cheikh Chouaïb mu indi fi liggéey bi yéeme boo xam ni xam naa du rek maa njëkk a gis tey waaye xam naa ñu bari ci ñu toog fii ñu bari tey lañ ko njëkk a gis muy wadaateur yu yéeme muy waneeti rek cofeelu njaboot ko Serigne Touba ci Serigne bi ndax fu ñu dem lu mu sori sori lu ñu gis lu mu yéeme yéeme ak lu mu seer seer jàpp nañ ne jékkut fenn fu dul ci barabu Sëriñ Tuubaa bi ba tax lu muy jar rek dañ ko jënd dañ ko indi itam ci loolu ci la Cheikh Ahmadou Lamine ànd ak mbokki taalibeem yi bi ñu gisee lii fi barab xam ne ci barabu Sëriñ Tuubaa bi rek la yàlla ñu taxaw temm ba indi ci tey lu ma ñaar fukki ak juróom ñaar fukki wantaat ak juróom yoo xam ne bu ci nekk juróom ñaar fukki junni lay jar loolu xaalis bu bari la kon positif la bu réer yi waaye laaxar wa du kiimaan moos Cheikh Amadou Amin Cheikh Cheikh bu def lu mel nii ndax ku xam Cheikh Cheikh bu xam nga ko ci bëgg Sëriñ Tuubaa ak dëggu ak ñàkki caaxaan ak fas ak dundam gépp mu jaaxal ko ci liggéeyal yàlla yonent bi ak sëriñ kon bu Cheikh Amadou Amin jiitee lu mel nii ku xam Cheikh Cheikh bu da ko naw da nga ko da nga sant danga nga ko gërëm danga nga ko ñaanal waaye da nga xam ne lii lu mu war a def rek la kon def na lu mu war a def waaye def na lu rëy nag def na lu am solo def na ko mbokki taalibe yëpp yaakaar naa samay wax ak sama cant dina néew loolu ci cant gi leen Cheikh Mouhamadou Mountakha jotal yaakaar naa jotal lañ cant goo xam ne ndax lii day jëf ju rëy yoo xam ne ak cant gu rëy da cee yàlla maanaam ñun suñu cant xam nañ dina son ndax lool ci biiru cantu Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax xam naa jotal na leen ko waaye kon duñ def rek lu may ñaan ndax laaj na leen fu mu gisaan wala sukkoora cant gi ko dara soxla woo ko sax ndax taxul ko def waaye nag mbokk taalibe ñu loo xam ne kon sañ ñoo ñaan ci liggéey bi nga yaa ngi ñuy àndal nga def ci ngërëmul Sëriñ Tuubaa ngërëmul Sëriñ Tuubaa mooy li nga xam ne mooy ci lépp nga ci biir loo fa gis rek lu lëf réeré rek ngërëmul Sëriñ Tuubaa ko yóbbu kon ngërëmu suñu tubaab nga xam ne fu dara nekk moo ko fa def daana ko sotti foofee ba mu ba nga doyul sëkk ak nga àndal suñu borom may la bu gudd suñu borom sàmm la nga bokk ci ndami sëriñ bi yi sëriñ bi damoo ëllëg ñu ngi koy ñaan di ko yaakaar ndax ñaan yu tege ci sabab la yu tege ci illa la ndax ndax jëf da ko sabab wala ci ñu yaakaar suñu ñaan googu suñu borom dana ko def di sàkk itam na kon nga ñaanal nu ni ngay ñaanal mbooloo mii nga àndal nga toppatoo ko indi ñu ngi suñu borom dimbali nu ba liggéey bi ñu liggéey sëñ bi ci jumaa ji sëñ bi nangul na ko nuyu itam sàmmal na njaboot gi jubal leen saa su ñu xëy ci sëñ bi di ci gont ndax nun day dañ koy jox suñ lépp suñu dund ak suñu faatu ak suñu lépp sëñ Tuubaa dañ ko jox waaw ci moom la ñuy tëdd ci moom la ñuy yow lépp la sëñ Tuubaa dañ ko kon la ci des rek mooy sàkk nga ñaanal nu ñu mu nangul nu nangul suñu lépp ndax nun bëggun dara su liggéey sëriñ ndax xam ne liggéeyu sëriñ bi ci njëriñu àddina ak ci àllaxira nag waaw di ko sant lool nag bi mu tafaxalee ba ñu yëngu ba ñu yëngu ci barab bi ndax barab bi du ku neex nga yëngu fi ku fi nekk fu nekk rek moo la fi yënguloo kon nag bu nu boole bu nu tànnee ci ñi bokk ñi ñi koy yëngul ci barab bi boobaa cant nga ci sant ñi sàkku ni ñi dimbali nu ci sant nañu ko ndax nun suñu kenn tuut na ci kon Mbàkke ñu ngi sant bu baax ñu ngi gërëm tey sàkku nga ñaanal lool itam ñi it lay ñaanal ñaan ñu nga ñaan ñaan ak taalibe yor nga ñaan ñaan ci sëriñ bi rek sottil sottil waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf bisimilah waaye bëgg na ko ci amin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin